ñëw di waa média bi ñëpp di leen jàmm di ko sàkku si yéen di wax uh, ndogal bi ñu am rek mooy suñu xale yi nga doon clandestin yam si géej gi uh, fii si Njaañ nag am fi ñaari moor kenn ki ñu naan ko Modou Diaw keneen ki ñu naan ko <coughs> Baye Maam Góor Diaw dëkk Touba uh, ñu nekkoon suñuy rek nekk suñu lépp nga xam ne si géeju ndar gi si leen génnee àdduna tey leen denc ñu leen di ñaanal yàlla suñu borom yërëm te xaaral àjjana di wax jeunesse bi ñu moytu géej gi ndax kon xam ne ne conséquences yi nekk euh, ñuy fexe jëm ci yoonu kaw yi ndax euh, géej gi dafa am ay période surtout heure bii nii nga xam ne ngelaw na kon képp ku nga xam ne jël nga yoonu gaal euh, nga teg ko si suuf te bañ a tëb tëb rek dem ndax kilifa yi dañuy jaaxle te timit njaboot gi dañuy jaaxle te booy xool Sénégal siin yëpp a ngi dem siin yëpp a ngi dem si ndox mi kon ñuy ñaan état bi rek ñu gën see taxaw bu baax a baax ba nga xam ne xale du mën a du mën a demati. ndax xale mooy fondos si réew ñoo yorum réew kon xale yooyu noonu nañ leen gën a jàppale gën leen a taxaw kon xam na ne Sénégal métti na waaye nag nañ ñu jàppale bu baax xale yi toog ndax ndox wóorut fukk yi jàll rek ñaar fukk faatu na euh, heure bi daaw rek daaw jéeg euh, suma ma juumul deux mille vingt et am naa fi ñetti nit sept personnes yoo xam ne njaañ ji ci leen génne àdduna boobu ba léegi nii ñoo ngi leen di wër waaye gisuñu leen boobu ba léegi ñoo leen wër leen. ñu leen wax ne état bi képp koo xam ne xam na ko rek euh, wane ñu def recherche nga nga nga dimbale ñu si kenn ki moo ngi tudd Ali Sour kenn ki tudd ah, kii Xaarim Jang keneen ki tamit Dame Seylu tudd fii si Njaañ ji ak ñeneen ak ñeneen ak Touba ñooñu tamit réer nañ waaye gisuñu leen waaye lépp solo muy 2024 bi suñu rakk yi nga xam ne dañoo génn àdduna ñu leen di ñaanal suñu borom yore leen xaajee na waaye état bi tamit jàppale leen bu baax a baax ndax ñoo nekkoon seen famille ñoo ko dirigé woon ngir bëgg lu baax rek a ñu jaar si gaal gi suñu borom jël seen bakkan wax dëgg yàlla kon ñu ngi leen di masaw bu baax a baax waaye di nuyu euh, leeral TV. kenn kii maam Góor Diaw moo ngi am 30 ans moo ngi dëkk Touba Lansar euh, keneen ki mu ngi tudd Mout Diaw moo ngi am 26 ans moo ngi dëkk fii si Njaañ ñoom ñëpp ay célibataire lañ kenn amu si jabar te avenir leen woon ndax borom métier woon kenn ki boulanger la woon Modou Diaw nekk fii si Njaañ kenn ki la woon fu mu daan ñëwee ñëpp teg si loxo te ñoom ñëpp dem nañ si géej gi ak ñeneen ñi nga xam ne gisaguñ leen. loolu tamit dañ koy lancer message bu baax pour nit ñi gën ko mën a bàyyi xel bu baax a baax non am ndox ku fay dem doo tàggoo bu doon dañoo tàggoo kon kon kon ñu yebbi leen waaye dañu xëy rek dem doo si xam dara loolu mooy muskil ba waaw ñuy ñaan rek booy nan toogaat te xam ne jamono ji des na quoi waaye suñ néew yooyu yàlla na suñu borom yërëm taxaar naa jëna mercredi bi mercredi bi passé lan waaye dem nañ ba sori si liñ wax mi demee ba TRC kii quoi ndar bu ñu teer ndar nag fi la booyee ci polo fa la ñu bari génne àdduna mooy image yi ngeen gis si réseaux sociaux yi. ñooñu moom xaw ma ko si quoi waaye ñaar ñi nga xam ne moom sama samay mbokk lan biir ne mën a génn àdduna ba denc na leen tey saraxal leen tey waaw. ah bëgg-bëgg mooy ñu jàppale leen rek ndaw moom liggéey la xam salam nekk nga jàppale ko sa soo ko si jàppale rek bu si gisee boppam du du wuti dara réew ma ndax liggéey moo am solo te liggéey sam réew di gis sa njaboot. moo dàq lépp si àdduna ndax moodu moodu ko na xam na na metti na te lépp si biir dangay am ñaar fukk yow juróomee sa doo ko lekk ñu si kër gaa koy lekk kon nag boo nekkee fii li nga am nga bokk sa njaboot moo ëpp solo fu nga nekk bitim réew. bi jàmbaar la daanaan la gaynde la góor la ak Serigne Touba xol nag la deme ndax xam nga kenn ku xam ni Sénégal tëddee kenn ku nekk sa bopp nga tal te yaakaar naa. sama ka sama man mii taxaw nii ñi ko tax a dem foofu si laa bokk ndax kenn ku si nekk say waajur ak say rakk moo la tax a dem te man moo ma féet ak mag n'est-ce te benn ma xamal na ñaar waa bi laa xono féete nañu kaw moom tamit moo si desoon ak i grand frère yaa am gën a xam xëy na sax bi mu dem yëguñu ko ndax bàyyi ko wut fii mais naqare ko yóbbu waaw te li ma mën leer na ne moom amul leen loo xam si lu naqar daal yaakaar naa moom fam fam jëm moom moo fa yóbbu ndax dafa bëggoon a terale rek te kenn ku si nekk yoonu gaal gi xam nga li si gaa yi tenir kenn ku taxawalloowut fii teniroo fa kon ak taxawal boo fa jëmee yow see yaakaar naa bëgg a jàppale askan wi wala mu a jàppale kon ñi mu dëkkal bu munta askan wi sax bu leen munta jàppale mu jàppale ñi fi dëkkoon loolu daal laa gis moom. nekk fa nga fa sam xel nekk ak fa nga war a yaakaar ne fa nga mën a tedde fa nga mën a dem. waaw ndax yaakaar naa si lii ngeen nekk nii yaakaar ne man ngeen see tedde moo leen si tax a des waaw xam nga nag du ñëpp mën a am lii ngeen nekk nii yéen kenn ku si nekk da nga koy misaal sa bopp waaw te ñëpp mu yem daal. métti na ma parce que ñëpp si yem muy képp koo xam si ne mooy sa mooy sa mag wala sa rakk wala sa jarbaat wala sa wala sa doom dem na si géej gi rek boo ko yëgee du la neex parce que risque moo si nekk mais mënut a ñàkk nag li li loolu la ñu wax naan situation obligée. usage obligé mooy loolu parce que réew mi mën na ne business bi yëpp léegi pour le moment nii dañu dañu dañu nekk yaakaar quoi si mi parce que boo xoolee léegi ni mu doxee léegi ni muy doxee l'état bi dafa war a gëstuwaat nit ñi booy yi quoi gëstu gëstu booy yi mooy lan mu xoolaat li nga xam si ne booy yi moom lañ bëgg mu taxaw si quoi parce que man muy moom muy ñëpp ñëpp si am mooy kenn ku nekk sa bëgg-bëgg mooy lan. jéem a tekki xool noo tekkee nga tëral say waajur képp ñëpp loolu moom moo nekk mais nag dafa neexul nag parce que boo xoolee mosuñ ay morom doo nga fi tukki ñenn ñi ma si kaw lañ jaaroon ñenn tamit ma si gàgg lañ réussir nañ ñooñu bu ñu ñëwee liñ mën muñ toogoon fii duñ ko mën kon nag loolu bu amee rek dañuy xam ne yaa problème loolu moo gën a poussé booy dem si gaal yi bien vrai que nag métti na néexul gaal yi métti na mais ñu si dara dañuy dem rek waaw ñàkk pexe la quoi comme ni ko waxee ñàkk pexe la moo xam daal l'état bi daal ñu ngi ko taal loxo bu baax a baax si loolu noonu mu jàppale waat booy bu baax a baax muy man muy ñëpp parce que man booy laa comme ñoom te tamit tey tamit soxla ñu moom laa te tamit euh, bëgg ñoo tekki nekk mi du dem fenn ñun ñëpp lañ bëgg parce que di yow digg santé ak sa bàyyi dafa neex mais boo demee Europe loolu amu fa Europe lu fa am liggéey waaye ci doo kenn kon nag la lañ mën am feneen bu ñu ko mën am fii dañuy toog comme ñëpp mais nag mu ñu ko am kon moom moo tax moo tax dañuy dem dañuy dem quoi. asalaamaaleykum ba mu nuyoo mbaloon ba pare di mettitlu di masawu mbooleem ku ma ko bokkal ndax metti na metti fi la mën a yem kii nelaw nag suñu borom moo ko tuddee nii mais li ëpp solo ñu koy saaku mooy ñu jàppale suñu ndaw ñi jàppale suñu mag yu góor yi jàppale suñu rakk yi ñu am liggéey ba lii bañatee xew ndax dafa metti dara waralu ko nag lu bëgg a teral seen yaay teral seeni i papa loolu rek moo ko waral ndax mënoon nañuy def ci leneen di dugg ci leneen mais defuñu ko daan seen doole am jom bëgg liggéey bëgg teral seeni waajur moo waral lii lépp. léegi nag li ñuy sàkku ñun ci nguur gi ak ñu ci mën a dimbale mooy ñu wutal leen liggéey jox leen xaalis ñu am départ ku ci nekk am nga métier am nga mébét mais amoo ndeslaay bu waral nga mën a am yenn force yi am doole liggéey yenn yi amuñu ko. te askan wi seetaan nañ leen daal ndax lii dafa metti dafa metti torop metti na xale bu ndaw am avenir tey waroon a fekk tey jii nga nekk sa wetu yaay wala sa wetu pàppa mu lay gis ak doom ni mu mel ci xol doom ni mu neexee ñu xëy xëy rek wax la nouvelle bu mel nii mënoo rey sa bopp mënoo xaru mënoo ci dara dañuy wax nii di forcer mais ku ci nekk sa xol bii danga taxaw mais nekkatut ndax doom dafa neex ñu xëy rek tàggale ko nii te dara waralu ko lu dul bëggoon a du seen bonte du seen dara dañoo bëgg a tekki ñoom ñëpp ku fi taxaw ku ci nekk boo sañoon tey sa yaay du jaaxle dara sa papa du jaaxle dara ndax bu la say waajur yoree yar la fañ la war a yare boo sañoon rek teral leen nan leen jàppale ñu am liggéey nan leen jàppale ci liggéey buñ ko amee rek baax na nuñ ko amee baax na ndax ku nekk rek luñ la jox mën nga cee liggéey man papaam ak sama papa ñoo bokk benn baay metti ma ndax magam moor sama papa lañ ko tuddee sama rakk bi topp ci man moo ko wàcceel soxna ma nga ne ñu tuddee ko doom si biir kër gi moor man Modou gëj naa ko gis ndax man Touba laa dëkk moom mi ngi dëkk fii mais gëj a gis lool ndax téléphone yi ak whatsapp yi fu ñu toll di déggante metti nag dafa metti metti loolu la def waaw nañ jàppale askan wi jàppale leen ci liggéey nañ jàppale ndaw ñi. metti na ma lool ndax ni ma metti mooy xale bi am na yar am na teggin am na diine am na ngor man de bàjjanam laa ma ak papaam bokk ndey waaye bëgg nay bàjjanam bëgg nay baayam bëgg na ñëpp ah, lii ko dalit daan doole bëggoon na tekki rek ndax papaam génn àddina mu yor yaayam bëgg yor yaayam ak rakkam xëy na saa borom moo dogal ne bisam bi mënu koo waa di dindi kenn ci dara yàlla moo foofu la ko yemale. gi moo tax waaye ku baax dem na ku am ngor ak lislaam ku bëgg waajuram li ma koy ñaanal de yàlla fi teeti àjjana a ah, lii kii soxna mi wax nag ndimbal rek la ñu ñaan ci ñoom ndax ku sañoon sa doom tekki ku sañoon sa doom yor la lii la ñuy ñaan mu jàpp ñu leen mën a jàppale ñu jàppale leen xale yi ndax xale am liggéey waaw yéen ñi fi taxaw yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal seen saa borom def leen jàmm defal ko bépp a julli yàlla na fi teeti àjjana loolu rek laa doon la dem sama mag la Mour Diaw wax dëgg yàlla di góor dëgg di jàmbaar maam dëkk Njaañ ni nii juddoo Njaañ yaroo fi maam ñi ñëpp xam sa teer bi maam tey maam tey ku fi ñëw ginnaaw taksaan doo xoolee sarasi ak rob bi waanum waanum xam ne xam ne góor dëgg dem na xam ne jàmbaar dëgg dem na xale bu yar bu baax lu gone moom mu da la koy jox cër bu mag moom mu da la koy jox doon jàmbaar na si pour bi nii waa di mu am indil ko seen seen kër kër gi nii kër baay ñii seen baay jàmbaar baay baay Ousmane Diaw jàmbaar jàmbaar dëgg la ay doom juddu tamit doon ko si doon ay jàmbaar ñoom ñëpp di liggéey ku si gën a ndaw ñii yor ay saret ñii di génn di liggéey bu nawet jotee ñoom ñëpp ñu ñëw dem dem bay kër gi nii melutoon nii lii lii maanaam kër gi nii lii ay lii la woon saaket ak seng ay ay góor yu ba tabax ko defal ko nii xaaruñ si kenn lenn ñoom xaaruñ seen mbokk mu am xaalis xaaruñ seen seen baaju ndaw waaja am am ay xaalis gëm seen bopp ku leen gëmul ñoom ñoom gëm nañ seen seen seen bopp waaw loolu am bokk te mu ñëw mii dem nii moo bokk benn magam ju mbokkal ndey ak baay ñoo àndoon dugg si biir àll gi ndeysaan lu metti ba bëgg a dee magam ñi ndeysaan yàlla yàlla maam delloo si wax ba magam ji ñëw waaye waaye moom des na waaye nan waaye nan jàpp rek too bàyyi liggéey gëm yàlla te xam ne yàlla rek kay buur xëj bu daggul yaagam yaagam dina ñëw wër na si wër na wër na Serigne Touba amaana lii lu jiitu ju ju dem la rek maanaam amaan lii maam yàllaa ko yàllaa ko tuddee tuddee woon woon woon na rek ndax ala kulli alin maam da siy jaar ndax maam ànd ak am ju bokkal ndey ak baay kooku déwut te moom moo nii dee na maam yàllaa ko bindee woon nii rek waaye waaye jàmbaar la man ak moom mujjee nañoo gisante waaye message bu ma sànni mi ngi nii sama téléphone ba ba tey na Serigne bëgg ma ba bëgg dee ami ami yar ami teggin doon maximum doon doon jàmbaar kenn mën a taxaw ne mujjee dafa wala nang mag nang wala mujjee yaa ngi koy fekk muy jàppante fee wala nang mag nangam amub cër si ñëpp jox ñëpp wàllum moom te gone gu ndaw la war a suñu waa daanaka fii maam gone gu doon taxaw fii waa waa wax ni kër gi daanaka moom dong la la si mag si suñu góor ñi waaye doon jàmbaar reyante cërëm yi ay magam yi nekk fii nii da leen a jox cër war na Serigne Touba doon jàmbaar da leen itaa dimbale maam gën a maanaam gën a wàññi dund ki xam nga gën leen a dimbale waaye si liggéey gën leen a taxaw te xam ne maanaam maanaam maanaam lu yàlla dogaloon rek waaye jàmbaar dëgg la góor dëgg dem na waaw te xam nañ njëkk fee dee mujj fee dee te ñun ala kuliyaalu ñu ngi ñëpp dañuy dee kan rafetal rek. waaw man la Alé Thiam président fédération régional des boulangers de la région de Louga. mu mel ni xale bi wàññeeku tey yoroon ko. waaw xale bi de wax dëgg yàlla def na ci man six ans euh, di def boulanger pâtisserie euh, nekkoon ci gone itam gu gu dégg lool gu yaru lool gu baax gu man métier mi itam. defe naa jamono bi muy jóge ci man dem na ba am na CAPM nekk trois deuxième catégorie ci boulangerie pâtisserie. waaw boo seetee deux ans ci gannaaw wala trois ans amoon nañ presque sept personnes yoo xamante ne bii ne euh, demoon nañ ci gaal gi ba léegi kenn gisu leen kenn déggu leen loolu itam wax dëgg yàlla di lu ñu frappé woon lii ñëwaat tege ci. muy koo xam ne gone gu ndaw la même pas vingt six ans mu mu mu génn àdduna ci anam boo xamante ne bii ne ci ci ci ci gaal gi la wax dëgg yàlla xaw naa doy waar lool ci commune Njaañ ñaar lañ ci am nag yoo xamante ni yàlla dogal na ñu demoon ci gaal gi génn àdduna. waaw message biñ ci njëkk di lancé dañ koy lancé état du Sénégal. ndax wax dëgg yàlla ku mel ne Modou mi nga xam ne génn na àdduna tey ak ki nga xamante ne bii ne dem na moom itam euh, defe naa Touba lañ ko entere maam góor mu doon tailleur boo xamante ne bii ne man métier di liggéey mais nag manqué de moyen dem manqué de moyen Modou nekkoon boulanger boo xam ne moom itam bu man métier la mais moyen itam ak ndimbal des na wax dëgg yàlla loolu xaw a xaw a doy waar la nag te dañ ciy interpréter état bi mu dimbale xale yi. loo koo gis mu dugg ci lii rek maanaam ñàkk mooy moo ko waral kon état du Sénégal nañu gën a dimbale te suñu xale yooyu ñu amoon itam yàlla dogal ñu génn dem xamuñ ci lan lañ nekk yooyu wàcc ak njaboot gu sew wàcc ay soxna wàcc yaay wàcc baay te ba léegi mënuñu leen wax ni la fii lañ jëm wala fii lañ nekk buñ sañoon nag ñu am sa exigement yu am solo ñu xam fan lañ nekk ndax lu am rek xam nañ ne yàlla la lu buñ dee ma xam ne xam nañ ne lii la suñu borom dogal ñun ñu gëm yàlla lañ waaye nag ñu xam suñu njaboot gi fan lañ nekk kuñ ci mën a dimbale nga dimbale ñu si incha allah rabbi waaw loolu day dañ ci lañ leen ci moytandikuloo bu baax ndax ku gis lii am tey ji ci njaañ maanaam kenn nekkul à cent pour cent ndax gone gu ndaw moins de moins de trente ans doon jëriñ ay way juróom presque un an wala un an way juróom genn àdduna vraiment mu nekk yore këram su dee ba dugg ci dara rek métti na mais nag ñuy ñu leen ci ñaax ñu moytandi ko gaal yi bu baax a baax a baax ndax gaal li noo xam te ni wax dëgg yàlla bu ci benn jàllee dem itam fukk danañ ci jàll duñ jam kon wax dëgg yàlla ñu moytandi ko bu baax euh, bañ caa dugg daal moo gën wax dëgg yàlla ndax suñ bés bu tey suñ bésu tey bi ci njaanjaal wax dëgg yàlla maanaam métti nañ ba fu ba fu métti di yem